day jox jigéen googu day gaaw a ràpp ndax parce que jànq lañ la jàppe loolu dinañ ko bàyyi xel jigéen sëy ànd nawlante la te problème yi am ci wàllu sëy lu ci ëpp ay jigéen na ko waral donte góor ñi am na ci ñu ko waral waaye jigéen ñoo ko waral boo yoree soxna te mënutoo ko yor te mënutoo ko dundal mënutoo ko yor demal bàyyi ko borom uti keneen nga uti keneen képp koo xam nag jëf nga ay jëf yoo xam ne dañ nga cee jublu di force sëy bi day tas ci misaal. sa soxna amul la def lu naqari ngeen ko fase naa ko foofu dañuy jàpp ne fase mi tàbbi na moo xam dama daan kaf wala kafoo sëy ay fase kenn du kafaale fase lu ñuy kafaale mooy fase naa sama dama daan kaf loolu dañuy jàpp ne fase bi tàbbi na mooy benn tàbbi na jàppal na ñaaral dese mu leer bi ci desaat ku bind ak kayit ne lii dama ko jublu lettre bi sama soxna bu ko jotee fasewu na lettre bi sa soxna saa bu gisee jàppal na sëy bi tas na loolu amul dama dem te ñëw bi téléphone mooy ko bind benn lettre jublu ci fasewu ak jëpp jëf joo xam yaa ngi koy jëpp pour jublu ci fasewu bu wax jooju noonu bu jëf jooju tàbbee dañuy jàpp ne fasewu tàbbi na même ki nga yónnee vocal sa soxna dama ko yónnee vocal pour fase ko na dem li yéene ji daal mooy naa si déglu vocal boobu noonu jot ci bu ko dégloo sëy bi fasewu la ndax yéene ji moo ci am solo jubluwaay bi même ñu bëree koy def ta njuumte la moo tax ma ne ñu bari yoruñu soxna dañoo yor as soxna di jigéen tëddëng waaye njaaloo la mooy koo xam ne amagoo soxna nga ne sama soxna kat su defee nangam ma fase ko mooy dama koy fase moom sëy bi day daal dog kooku moom képp ku ko def nga dem am soxna soxna def loolu sëy bi dañuy wax ne fase bi tàbb bi ndax parce que yaa yaa gaaral dangaa gaaral ay mbir yoo xam ne ñëwagut kii ne sama soxna boo demee kër sàngam mu fase la bu demee kër googu sëy bi day fasewu te ñu bari nga koy def sama soxna defee nangam fase naa ko mu def ko kon fa kon dañu jàpp ne fase bi tàbbi na moom bokkut ak nag sama soxna bu defee nangam dinaa ko mooy sof bu ko defee dinaa ko ak bu defee bu ko defee fase naa ko du benn te ay mbir la yoo xam ne day faral di am ci pénc mi te ñu bëri ci bàyyi kon su fekkee soxna si yàlla boo na la li nga war a doxee ak moom mënoo doxee ak moom am na yu bëri yi ngay gaara sa diggante dañuy jàpp ne kon foofu sëy bi day daal di fasewu seen diggante day daal di jeex. ku ne dem yéen ñaar ñëpp ngeen dem bu dee sëy bi nag bëri na ay jafe-jafe ku góor kan koy jàngoonte ku jigéen li ci gën nañ dem ci yoon ñu fa ñu taay xale leen ngeen dem ngeen dem ku ne dem mu jeex tàkk ndax parce que sëy yoo xam ne coow guddi coow bëccëg ku ne di coow ku ne di wax loolu ay mbir la loolu lu ko waraan nag mooy tànnoo fi ngay dugg sëy dañuy tànn fi ngay dugg jigéen ki day tànn borom kër ku góor ki day tànn Euh, soxna bu ngeen ko def rek jafe-jafe mën naa bañ am waaye saa boo defee di xool ko rafet ba am-am lu ci bëri sëy yooyu noonu du yàgg conseil ci internet bi nag yim mu yàq bari na ndax ki ne la sa jëkkër nang sama jëkkër nang sama soxna nanga def nga dem bu appliqué loolu soxna da ngay am problème sa soxna ko est ce que soxna si est ce que benn la sa soxna soxna si est ce que benn la sa borom kër ak borom kër ki est ce que benn la sëy lu ñuy lu ñuy réglé ci réseaux sociaux sëy lu ñuy toog di ko waxtaanee lay doon lu ñuy toog di ko waxtaanee pour jàppalante jarani wàllu famille la wàllu famille ko réglé am na sëy yoo xam ne ba mu tasee la fin bi yàqu mooy sëy mbokk yeeg sëy yu yinde ba mu tasee la fin bi yàqu ndax parce que lu ko waral mooy jàppalante ne ay een sëy lu ñuy waxtaanee la ànd ak tàqalikoo lu dagan la loolu dara nekku ci loolu loolu mën a nekk ndax parce que mbir la moo xam ne yàlla moo ko tënkee noonu kon dugg gi ci nit ñi dugg te waruñ ci woon a dugg loolu bokk na ci indi jafe-jafe yi war na tey ñu jël ci tomb pour ne leeral gént ñu fase la ak avant ngay gént fase lan lay tegtal nit ñi nag dañoo wutee nit ñi wutee noonu la seen ay gént di wutee ak ay tolluwaay yi nga toll ak ci jamono ji nga nekk am na ñoo xam ni ñu koy géntee noonu lay demee ndax nit ñi bokkul am na ñoom tey ji nelaw ba xar doog a génn ñoo ñeg seen génn lu ci bëri adaxaaful axlaam lay doon rek mën na wér mën na bañ a wér waaye ki nga xam ne daa tëdd nii rek commencé xap xappal ñu wan lu ci ëpp foo ko fekk kooku dañ koy ilham dañ koy wan kooku na koy géntee day doon loola gént fase nag dana doon ak ñàkk ci nit ki am na ci ñoo xam noonu lay doon am na ci ñoo xam day doon tàqali ay jafe-jafe am na ci ñoo xam problème yi nekkoon yu ciy génn am na ci ñoo xam ne feebar bu leen daloon danañ ci génn balaa yàgg am na ci ñoo xam ne tàqali ko ak rab la am na ci ñoo xam ne seen borom kër day faatu bu gént ñu fase leen kon yii ay tomb la yu aju ci wàllu gént fase euh, ki nga xam nag nga gént sa waajur wi faatu ne la faseel sa soxna loolu saa bu amee dana doon ñetti étape ci nit ki génti gént gi danay doon benn jëmmi kooku mu ngi ci ay mbir yoo xam ne na ko bàyyi nekkul lu gën ci moom ñu ko koy misaal beneen bi ci toppaat dana tegtale ay xat-xat wala ay jafe-jafe yu mu doon jànkoonteel yàlla di ko ko teggil bi ci toppaat nag mooy dana wane ni bu doon doon ñaanal waajuram bi njéggal yàlla mën na koo jéggal ci jafe-jafe yi mu doon jànkonteel suñu borom di ko teggin kii jigéen la goo xam ne dafa ëmb mu gént gis ne boroom këram da ko fase dana doon ñetti anam yoo xam ne danay faral di am benn jigéen joo xam ne day tiit bu baree bari ci wàllu am doom bu ciy sikki sàkk loolu dina tegtale nga génn sa boroom kër fase la bi ci desaat dana tegtale jigéen joo xam ne dana wane ne ay am doom mën na am doom ci lu yomb nag dana am doom ci lu yomb bi ci de desaat tamit dana tegtalee jigéen joo xam ne ki mu ëmb jigéen lay doon mooy dana tegtale am doom ju jigéen moo tax ci anam boobu moom baax na euh, beneen bi ci toppaat ki nga xam ne amagut jëkkër wala amagut soxna mu génte fasew loolu baax na loolu dina tegtale koom mooy alal juy dugg sa loxo wërsëgu yaatu gi ñëw ci yow beneen bi ci toppaat bu la fekkoon ci ay jafe-jafe balaa yàgg mën ngaa génn ci jafe-jafe yi bu fekkee nag ku jigéen koo xam wala ku góor moo gént am jafe-jafe ak soxnaam ban dem tribunal loolu moom saa bu amee rek sëy bu tas lay tegte lu ci ëpp ni waa am ta doon bu boo xam tas wala sëy boo xam ne jafe-jafe yi bu ngeen ko ci tàqalikoo ngeen di mujjee loolu moom loolu lay tegtale beneen bi ci desaat jigéen joo xam ne nag da ngay gént ñu lay fase loolu saa bu amee rek am nga faru rab Bola top di la yakal lu bari wala far rab mana xam ne na lay gàllankoor sa digeentek say borom keur wala say digeentek ay nit motax ci anam mom moom euh benen bi ci topar moy ko xamni da nga gënt ñu fasale ba nopi nga amaat jëkkër ci biir gënt gi dana doon ñetti anam bi ci njëkk bu la fekkon ay jafé jafé sa digeentek say borom keur man na tele jafé jafé yu jeex bu dee nak da nga ki la takkat ci gënt gi xam nga ne diw sàngam moo takkaat loolu it saa bu amee rek dana wane ne danga jànkoonteeg ay xat-xat ay jafe-jafe ci li la wër wala ci sa mbiri bopp yow moom bu dee nag kim tak ki la takkaat xamoo kum doon loolu baax na loolu ay xat-xat yoo doon nekk yàlla di la ko teggil maanaam ay jafe-jafe yoo nekkoon yàlla suñu borom di la ci génne bu dee nag da ngeen am ay jafe-jafe yéen ñaar yow sa borom kër da ngeen am jafe-jafe nga gént mu fase loolu baaxul loolu saa bu amee rek problème lu ci ëpp problème yi day yokk mooy pour ngeen am solution seen wàllu diggante dana xaw a jafe lool sax beneen bi ci desaat tamit koo xam ne amagoo borom kër nga génn safar bi nga xam ne moom nga nekkal mooy de la fase loolu baax na loolu saa bu amee rek benn dana tegtale ni mën ngeen a jàpp dat pour wàllu sëy ba way laa dina waxtaan yow lu aju ci wàllu takk koo tax ci anam boobu moom ku ko gént mën nga am yaakaar lool nag bu dee nag koo xam ne danga doon sangu ay saafara lu aju ci wàllu rab nga gént ku ne la fase naa loolu baax na loolu saabu amee rek rab yu la doon yàqal yàlla mën naa dogal mën nañ laa wan gannaaw mooy rab yi la toppoon daal di la sonal wala li indi ay jafe-jafe ñu ngi ci yoon wan la gannaaw pour bàyyi la moo tax loolu moom saabu amee rek baax na lool ci wàllu gént peneen euh, bi ci desaat nag koo xam ne danga gént euh, sa borom kër mel daal dafa am. mu fase daal mu fase la yow loolu baaxul loolu sax ba amee dina tegtal ak ñàkk benn bu doon ko nekk ci palaasu liggéeykaay na tegtal palaasu liggéeykaay mën na koo ñàkk bu doon tamit koo xam ne dafa am mbir yu muy dugg mën na cee tey bu baax xam ne bu ci duggee mën na ci am ay jafe-jafe loolu tamit lu ma di bàyyi xel la kon mbokk yi nga xam ne aajowoo numéro bi mën nañ koo jël 78 443 vingt 27 ñi nga xam ne dañoo bëgg ñu firi leen gént wala ñu defal leen di saxaar incha allah rabbi benen bi ci desaat ñi nga xamne ne wàllu kumte wala cat da leen yaqal lu bari way la ñi nga xamne ne dañoo bëgg lu aju ci walu ubbeeku wala ay jaar yo xamne ne day dox ci walu bayri wala mahabba nit ñi bëgg la nit ñu sopp la wala inshallah allah rabbi mën nañu jël numéro bi ñu woote ci wala ñu vocal ñu ci numéro bi bu dé firi gën ci nak dañ koy fayeku mo xam nga woote wala nga vocal xool na ci nit ñi baye xel bu baax ndax non lay liggéey bi doxé pour ñi nga xam dañuy bëgg ku leen firil gënte pour kon ñu bàyyi ci xel baax kon numéro mooy 78 443 75 27. bu dee ñi nga xam nag wàllu ndoxu siti def leen a lool wala émorite wala néew kàttan wala ñu am jafe-jafe ci wàllu ay wallax njaan ba mu téye leen am doom wala koo xam ne wàllu rab da koy yàqal lu bari mënta am jëkkër wala mënta am doom yooyu yëpp incha allah bu ñu wootee nan leen jox ay tegtal wala ay teg leen ci yoon ba jàppal leen suñu borom dogal daal jafe-jafe boobu ñu tàqali ko moom ci jàmm incha allah rabbi kon numéro mooy 78 443 75 27 ba tey it eh, koo xam ne nag dangaa gént eh, mel ni koo xam ne da dangaa fase sa soxna fekk dangaa feebaroon loolu it baax na loolu saa bu amee rek bu dee ku mu fekk ci feebar di nga wér waaw ku mu fekkoon ci feebar moom mën ngaa séntu ni feebar bi di nga wér jigéen joo xam ne dafa gént borom këram fase ko loolu bu dee sa borom kër dana tegtal ak tàggoo mooy seen diggante mën naa jeex te bii jeex moom day tegtale moom day faatu loolu it eh, loolu lay tegtale bu dee jigéen joo xam nag dangaa génn sa borom kër faatu na ba noppi nga gént mel ni la fase loolu